salaamaaleykum salaamaaleykum je m'appelle Mouhamadou Fall alias dix mille problèmes di nuyu tous les sénégalais et sénégalaises di masoo coono tous les sénégalais ñu wàccoon ci mbedd mi pour nit ñi comprendre dafa am lu tax nit ñi wàcc ci mbedd mi ñu bëri ñu ngi wax na mais comprendre bi di dinañ comprendre après d' maa ngi nuyu ata force de la nga xam ñoo nekk ci terrain yi nous sommes des citoyens sénégalais di nuyu garde pénitentiaire yi di nuyu ñi ma doon dimbali ak ñi ma ñaanal di jaale sama bopp di jaale sama yaay di jaale tamit képp koo xam tamit yaayam faatu na ñëpp am nañu yaay ku am yaay am nga bàyyi ku am ndey am nga bàyyi ndax ku li nepp seen saa yu xasit moo ci yaa noonu yàlla jàppale jàppale sénégalais yal na yàlla jubale sénégalais ñun nous sommes des frères et des familles di ñaan yàlla nag sénégalais yëpp li état appliqué si couvre-feu nan ko appliqué man ñëw ma fii pour critique d'état je suis là pour véhiculer le message pour état comprendre mais ñëmu fi pour critiquer wala pour saboter ça c'est pas du sabotage ça c'est du conseiller nan respecter mesures yi c'est vrai nan respecter mesures yi respecte constitution bi mais ne état tamit respecter sénégalais yi yaa salaam